Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi wóote leer ci bile jamono. toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi ci bile jamono. fii la mburu bi tàngee fii lay xayam yile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër leer ci yile jamono Seneinfo International jërë ngeen jëf di am mbégte ak contentement ba tey di leen dalal ci seen yor-yoru Seneinfo comme ni ñu koy defee saa su nekk rek maa ngi koy amal ak sama naataango yii di Buur Sine Coumba Ndeffène Diouf ak kii di Kalidou Ba ñu dikkaax yéen rek ci ay sujet yu am solo daal di am waxtaan bu yaatu ci loolu dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu daal di jàll ci yooyu lee waxtaan Buur siin salaam soxna Asel maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax di la. ndokkale ci seen bésu tey bii muy journée internationale euh, de la femme xam naa ne instant yaa ngi koy dund ndax tey moom ni nga sañsee euh, ute naag yeneen bés yi di jaajëfal itam sama naataango bii di euh, Kalidou Ba di amaan mbégte baax kon di bokk ak yenn plateau bi te nag comme ni ñu fas ñu jagleel ko journée internationale de la femme jigéen ñi ñoo ay donte jigéen ñi sax chaque jour moom lañ leen war di. ne ko di célébrer kon ñu bu baax mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel. Mhm. di am mbégte baax di ànd ak yéen seen yor yor seen i. dëgg a Kalidou mhm. euh, buur. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee rek ñu lay seete si si ñu lay ndokkeel si journée tey bi di journée huit mars xam ni ñoo jagli maama yëpp ndax journée mondiale de la femme la suñu maman yeeg suñu sœur suñu rakk yëpp. Mm-hmm. di ñu euh, ñi xam ne ñooy internet yi ñu suivre à travers seen info national ak international. jërë ngeen jëf Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf jërëjëf Kalidou Ba comme ni ngeen ko waxee rek tey la journée mondiale de la femme nekk bés boo xamante ne nii dañ ko jël jagleel ko jigéen ñi également ma di leen souhaiter bon fet à tout les femmes bonne fête à mois même <laughs> voilà si loolu xam naa dañuy jàll tey moom si jour si bés bi la ñuy waxtaanee. si 8 mars bi nga xam ne dañu ko jagleel ñun jigéen ñi si loolu dinañu waxtaan tamit li ko njëkk si 8 mars fan la jógee lu waral boobu la bés ñu jël ko jagleel ko. jigéen ñi bu ñu fa jógee tamit waxtaan si thème ren bi te comme ni ñu koy ndaxte at bu nekk dina am benn thème boo xamante ne nii dañ koy jagleel boobule bés daal di ci waxtaan suñu jógee si thème bi nag dinañ jël suñu ay soxna yoo xamante ne nii liggéey nañu lu rëy si bi si mim réew Sénégal nga xam ne kenn dootu ko fàtte ku si mel ni Seyda Mariama Niass dinañu waxtaan ci moom ak yeneen ni soxna ñi nga xamante ne nii liggéey nañ fi loo xamante ne nii kenn dootu ko fàtte bu ñu jógee foofu nag ñu ñëw si influence du féminisme entre tradition et modernité maanaam waxtaan si jigéenu léegi ak jigéen yi nga xamante ne nii ñoo fi jóge woon ñu daal di ko jeexal rek ak loi sur la parité bi nga xam ni euh, jagleel nañ ñu ko fële ca assemblée nationale ñu suneeloon ñu ko maanaam mooy euh, loi bu ñu mayoon ñun jigéen ñi ba fépp fu góor taxaw jigéen man faa taxaw si loolu xam naa damay ñëwaat ak yéen si suñu première point bi nga xamante ne nii mooy fan la 8 mars bi jógee si 8 boobu boobule nag ginnaaw bu ñu ONU jaglelee boobule bés en 1977 bés boobu nga xamante ne nii gis nañu suñu ay jigéen ñu bëri ay féministes fële ca Amérique foofu la sosoo sax ñoom tamit daan nañu doon def bàyyi seen liggéey di def ay manifestations en 1900 si au 20e siècle foofu la 8 mars bi sosoo ñoom nag daan nañu di kaas seeni droit di def ay manifestations. si loolu tamit uh, am na jigéen yoo xamante ne nii par différents pays doonoon nañu daje di def ay rassemblement di daal di waxtaan ONU nag jagleel boobu bés boobule bés ONU jagleel ñu ko en 1977 xam naa balaa waxtaan di gën a yaatu damay bàyyi sama naataango bi Kalidou mu am lu mu ci indi ñu daal di continuer Kalidou. waaw comme ni ko waxee uh, journée 8 mars journée mondiale de la femme. Mm-hmm. mel na. suñu xoolee fi huit mars fi mu commencé sore na lool dañoo remonté fu sore lool lool mën naa wax ne sax presque temps temps première guerre mondiale parce que mm-hmm. en 1914 di di euh, lu tolloog euh, benn at ak juróom-ñeenti téeméer mm-hmm. ak fukk ak ñeent di 1914 fële ci Allemagne ca ca Tugal mm-hmm. euh, ci la Allemagne yi nga xam ñoo daawoon nekk ay ouvrier di liggéey ci entreprise yi ñoom ñoo daal di def ay marche ak ay meeting loolu lépp rek ngir euh, ñaan ñu am droit de vote ñu bokk ci élection mm-hmm. am am droit tàbb comme ni nga góor ñi di defee mm-hmm. euh, foofu la doore mu yëngu lool nit ñi bari daal ñu adressé seen cause gis nañ aussi euh, bi mu tegee ñetti at 1917 tamit fële ci Saint-Pétersbourg nekk fële ci Europe ñi nga xam ne ñoo nekk ay ouvrier mm-hmm. di liggéey ci entreprise yi ñoom daal dinañu def ay meeting ay sitting ak campagne Euh, propagande pour jigéen ñi daal jox leen seen yelleef ñu daal di bokk di tàbb fi ñoo tàbbee rawatina njiitu réew ak assemblée leneen ak leneen mooy droit de vote cëslaay li foofu la njëkk maanaam droit de vote pour jigéen daal ñu bokk ci élection yi moo historique bi foofu la jóge 8 mars léegi nag euh, ay xeex yu bari am na ba euh, am na ñaari fait fait historique aussi yoo xam ne jàpp nañ ni bokk na ci tax 8 mars daal di am mm-hmm. bu njëkk bi mooy ce continent Amérique la dooree man Women's Day boo xam ne bis la boo xam ne comme tey rek bis boo xam ne dañ koy jagleel jigéen ñi si Day boo xam ne parti socialiste américain bi nekk fële ci Amérique en 1909 euh, moom euh, dafa daal di euh, lancer benn campagne pour propagande à travers médias yi fu nekkoon ak ci mbedd yëpp pour jigéen ñi daal ñu fexe dañu ay élection ay vote mm-hmm. bi am na beneen fee tamit mooy journée des femmes en boo xam ne di nga daal di taxawal fële ca Europe rawatina ca Copenhague ca Danemark mu ëmb lu toll ak euh, ak juróom-ñaar 17 pays yi nekk ci Europe ñoom dañ daal def ay sitting ci Europe ak campagne pour ñu fexe ba jigéen ñi vraiment ñu daal di leen jox seen te loolu bi nga defee nag 8 mars la daawoon tombé moo tax bi ñu demee ba comme ni nga ko waxee d'ailleurs euh, le 11 mars 1977 li nga xam ne mooy euh, mooy organisation des Nations Unies di bànqaas bi nga xam ne di moom mooy euh, yilifa àddina bi Nations Unies mm-hmm. moom moo daal dina officialiser par par décret officiel mu nekk journée internationale de la femme journée xam ne comme bis tey si jotee mm-hmm. dañoo mandargal euh, maanaam euh, jigéen image am ñu koy jaay à travers le monde ak di wane aussi importance jigéen société yi xam naa. Mm-hmm. ñu gis tamit démb ñu doon fàttaliku talaatay ndeer mooy suñu jigéen yooyu nga xamante ne nii doon nañu bañ ku leen tënk. ba waraloon euh, tamit euh, yooyu le feet la tey ndeer démb tamit ñu gis ci ay jigéen yu bëri jukku def ay ndaje di sargal yooyu le jigéen ci talaatay ndeer bi démb est-ce tamit mën nga ñu see indi la quelques points rek waaw waaw dëgg la comme ni waa jigéen Sénégal yaaga na doon jàmbaar xam nga bu njëkk jigéen jigéen Sénégal mm-hmm. dañuy wax ne ñoom di euh, dignité rek waaye dañoo bañte beddee rek mais kenn du leen toroxal mm-hmm. yaakaar naa ne histoire jigéenu ndeer même xale yi jàng primaire sax war nga leen jàngal ci école bi mm-hmm. continue nga am na solo ndax jigéen ñoo xam ni ah sàmm seen dignité sàmm seen honneur moo tax euh, ba tey ñëpp di fàttali nekk jigéen ñi nga xam ne amaltuwaay gouverneur ñëw daal daal seen seen seen kaw daal néewal leen doole mm-hmm. ñoom ñu préféré néeg ñoom ñëpp daal di wu ci benn néeg benn ñax néeg ñax bu njëkk moo amoon mm-hmm. ñu daal di li nga li nga xam ne ñu jël ay briques ay ay allumettes daal di taal taal ni taalal seen bopp ndax ñu bañ ñi xam ni tubaab bi mooy ñu mhm. daal di dal seen ko ak di métitel mu ne loolu nag li mooy seen lu rëy ma wax ne la jigéen Sénégal yaa gën a am fulla yaa gën am fayda mhm. yaa gën am dignité comme ni comme gaaw la sekk di waxee mhm. benn loxo mooy takk tuyee mooy takk sër ni ko waxee voilà ñaari loxo yi takk tuyee damay takk sër ñaari loxo mooy takk tuyee damay takk sër góor jigéen ñëpp mën a wax ni ñoom au même pied d'égalité même sax soo ñu suñu diine si ci laay si diine sax yàlla moo njëkk def ci al yàlla moo njëkk euh, def li nga xam kitaab ngir parité mm-hmm. même suñu téere bi sell bi di alxuraan sax suñu demee bi am saar boo xam pour jigéen ñi soo tamit nisaa yi loolu li ma wane rek mooy jigéen quand même jox nañu cër ci l'islam dëgg la loolu sax dinañ si ñëwaat si ay mbirum parité xam naa bu dama lay jox kàddu gu rek nga ñëwaat tuuti si 8 mars nekk bës boo xamante ne nii dañ koo jagleel jigéen ñi tey jile waaw soxna Astel comme ni nga ko waxee bésub tey 8 euh, mars la ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jigéen ñi euh, jigéen nag comme ni wax rek yàlla moo ko suturaal jigéen yàlla moo ko suturaal jox ko don boo xam ne mooy jur jur dafa am solo te maanaam lépp lu fi baax mën nañ ne jigéen la jigéen moo jur jigéen moo jur tey góor gu baax jigéen moo juri jigéen ju baax kon daal euh, mën nañ ne lépp lu baax ci àdduna bi jigéen la kon dañ leen di delloo njukkal di ko tàmbale sama sama yaay sama yaay Khady Dieng saala moom maa ngi koy wax euh, bonne fête euh, nga xam ne moom mooy sama soxna di ko souhaiter li nga xam ne kon moom mooy it bonne fête di ko remercier tam ci lépp taxaw bi taxaw xale yeeg to yu neexe yeeg yëpp ñu ngi ko ci remercier macha allah diit remercier it di sargal bépp jigéen boo xam ne rek xarit nga connaissance nga sama rakk bu jigéen euh, samay rakk yu jigéen ñoo it euh, samay tante ñëpp daal kuy jigéen rek ñu ngi lay delloo njukkal ci bésu ci bésu ba tey bi di waxit euh, bonne fête 8 marche ak une femme exceptionnelle muy Seyda euh, Mariam Niass Cheikh mm-hmm. Mariam bin Cheikh Islam te ñu gënoon te ñu gën ko miin euh, ci yaabooy euh, Seyda di jigéen joo xam ne ju am solo d'ailleurs sax sama jàngatu tey ci journée mondiale de la femme moom laa ko jegleel xam naa ci kanam tuuti rek dinañ ci dikkaat di nga ci ñu nga tuuti tamit si talaatay neer bi nga xamante ne nii démb la woon tamit. effectivement ci Sénégal veillu 8 mars muy le 7 mars. dafa am événement bu fi amoon muy bu am solo boobu di li nga xam ne moom mooy talaatay ndeer jigéen ñooñu nga xam ne ba bañoon nooteel ak sàmmoon seen ngor moo taxoon ba ñu kon euh, dugg ci li nga xam ne moom mooy néegu ñax taal seen bopp donte nag am na ñoo xam ne acte boobu xaru lañ ko jàppee ah il faut am na ñoo xam ne honneur lañ ko jàppee am ñoo xam ne nee nañ donte honneur la dañoo xaru ndax dañoo taal seen bopp daal dañoo rey seen bopp ci liggéey am na am na am na am na ñu ko jàppee am na ñu ko jàppee loolu quoi àdduna moom noonu la peut-être ñii dañuy gisee nii ñii gisee ne mais si ak lu mu si mënti doonit moom mën nañ acte de bravoure la mm-hmm. acte de bravoure la acte de en tout cas pour sàmmoon seen dignité moo tax ñu amal ko loolu yaakaar naa day wane rek ne kon Sénégal yàgg na am ay jigéenu jàmbaar Sénégal yàgg na am ay jigéen yoo xam ne ay ay ay jàmbaar lañ ay jigéen yoo xam ne ñu ñu ràññee lañ muy sur le plan national ah. na ñu naan dañoo bëgg li nga xam ne moom euh, 7 mars boobu ñu instauré ko journée nationale euh, journée nationale de la femme quoi pour fii ci Sénégal tam ñu amal journée nationale de la femme comme ni mu amee journée africaine de la femme am journée mondiale bëgg nañu fii ci Sénégal 7 mars boobu euh, ñu ñu ñu instauré ko waaw na serait-ce ñu def ko benn hommage à l'honneur des femmes de des des femmes de Nder ci acte boobu nga xam ne defoon nañ ko quoi. Mm. si loolu ñu waxtaan si thème ren bi nekk pour un monde digital inclusif. innovation et technologie pour l'égalité des sexes maanaam yemale bu ñu war a def ci wàllum réseaux sociaux nekk jigéen diggante nekk ci diggante góor ak jigéen ci loolu Kalidou ma bàyyi la nga indi ñu ci ay yaatal. waaw jërëjëf Asel bu ah, mel na thème ray bi mooy ah, internationale de la femme bu 2023 thème bi euh, pour un développement pour un. Euh, pour un monde pour innovation et technologie pour l'égalité des chances mm-hmm. mu mel na lu am solo ndax jigéen ñi war na gis seen bopp ci jumtukaay xarala yu bees yi ndax actuellement bi adduna bi def toll si ubbeeku si modernité jigéen ñi war na gis seen bopp mm-hmm. et li tax li gën a wala sax ñu def thème bi mooy en deux mille vingt euh, ki nga xam ne ñooy bànqaasu Nations Unies def benn rapport deux mille vingt deux euh, ñu gis ni li nga xam ne mooy euh, jigéen ñi ni leen di di di maanaam daal nan fexe ba vraiment ñu promouvoir jigéen ñi seen place ci espace numérique yi gis nañ aussi jigéen ñi di leen bunda xataal ci réseaux sociaux yi mm-hmm. voilà à travers les techniques de l' information ba rapport bi li ma li ma def mooy euh, jigéen ñi xataal bi leen bunda xataal day daal di euh, day daal di am impact ci réew yi nga xam ne néew doole lu tolloo ko mille milliards de dollars mille milliards de dollars de dollars en deux mille vingt deux maanaam d'ici deux mille vingt cinq jigéen ñi leen néewal dool si wàllu jumtukaay xaral yu bees dina dem ba mille cinq cent dollars perte réew yi xam ne nekk Afrique réew yi nga xam ne maanaam daal euh, développé wuñu parce que même Sénégal dañu koy gis jigéen ñoo xam ne souvent dina harcelé si réseaux sociaux yi maanaam dañoo yor seen ay photo di leen di leen sandal pour publier seen photo mm. wala par exemple di egg seen violence seen kaw lu mel noonu gis nañ ko comme bari na surtout même en Afrique sax Sénégal sax koy gis dañu fexe bees yi du nekk loo xam ne dafay créer écart entre jigéen ñi loolu moo tax ah, ñu jël thème bi nga xam ni ay panélistes yu mag ci Nations Unies daañu développé ay thèmes ay journalistes ay entrepreneurs yu mag ay jigéen ñoo xam daañu waxtaane si thème bi ñu la ñuy fexe ba ñu mettre ay plate numérique nga xam jigéen ñi daañu fexe ba vraiment ñu promouvoir seen droit waaye bu ñu nekk ñoo xam ne góor ñi di leen marginaliser di dëkk di dëgg dëgg seen kaw maanaam ci li nga xam ne mooy ñu ngi koy xelal lu bees yi jërëjëf Kalidou nekk na lu am solo si loolu tamit buur ma bàyyi la nga am loo ñu si indi rek si thème boobu nga xamante ne ni tànn tànn nañ ko si 8 mars ren ji waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee xam nga dañoo nekk si jamono joo xam ne eh, fi mu nekk nii digitalisation daanaka moo xew fépp maanaam dañuy utiliser li nga xam ne moom mooy xarala yu yu yu bees yi eh, ngir nag mën a jàllale li nga xam ne moom mooy message yi ngir di gën a mën a Euh, communiquer euh, wante itam euh, ci domaine yëpp booy xool nouvelle technologie dafa indi daal loo xam ne lépp luñ doon def peut-être dina gën a gaaw dina gën a baax ak li mel loolu nag tax kon ba ñu xool ñu ne war nañ mën a utiliser li nga xam ne moom mooy nouvelle technologie yi pour xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ngir jigéen ñi gën a autonome ngir jigéen ñi ci wàllum santé ñu gën leen fa jàppale ci wàllum développement ñu gën leen faa jàppale mm-hmm. ñu xoolit ne kon euh, loolu war nañ ko mën jaarale ci li nga xam ne moom mooy technologie innovante yi maanaam kon ay xarale yi nga xam ne yu bees la war nañu mën a jaarale li nga xam ne kon moom mooy boobule programme ci xarale yi ngir jigéen ñi kon gën a yëg seen bopp bu baax a baax a baax ci développement ci santé wante itam ci ci autonomie ci économie ak ci lépp daal jërëjëf buur nekk na lu am solo si temu ren bi si loolu tamit xam naa dañuy jàll si ñi nga xamante ne nii ay jigéen ñu man góor lañu ñu jël si ay exemplaire si loolu tamit xam naa dama lay bàyyi rek nga waxtaanee kii di Zeyda Mariama Niass nekk jigéen ju man góor moom nag jàngal na ku nekk jàngal na kilifa jàngal na ñu bëri nekkoon na nitu diine nekkoon ko xamante ne nii sopp nañ ko torop duñ fi toog naa ko waxtaan si ay jigéen jàmbaar yi nga xam ne nekk nañu si mim réew te waxtaanuñu si moom si loolu xam naa dama lay bàyyi nga ñëw si parce que gis naa ni dèjà nekk na jigéen yoo xamante ne ni dañ ko sopp dañ ko sopp loolu macha allah ma bàyyi nga ñëwal ñu moom rek. waaw comme ni nga ko waxee soxna Astel Cheikh Mariam bin Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Seyda Mariam Niass mënuñu tudd jigéen eh, ci Sénégal fii te tudduñu ko mënuñu tudd jigéen ci Sénégal. te tudduñu ko moom sax day jigéen ju moon góor la te day fekkee buñu demee ba si biir di nga xam lu tax ñu tax ñu wax li ni mel moom Seyda Mariama Niass nag mu ngi gane àdduna 1932 dëkk bu ñuy wax Kossy nekk foofule ca ca Kaolack euh, dafa nekk nag jigéen joo xam ne dafa def lu am am am solo ci li nga xam ne moom mooy euh, enseignement islamique ak euh, éducation religieuse enseignement du Coran propagé ko loolu def na ci loo xam ne euh, pour euh, pour pour pour pour pour góor sax defati ko Sénégal boo nee nekk lu jafe quoi waxantuma la sax jigéen d'ailleurs bokk na si jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy njëkk a euh, taxawal ay daara fii gi Sénégal di jàngal alxuraan bokk na si jigéen yooyu. ci taarix ñu ne bi mu amee li nga xam ne moom mooy juróomi at ci la dal alquranu karim foofale ci école baayam Cheikh Ibrahim Niass nekk ca. ca Medina Baye ñu ne eh, ci ba muy am quinze ans fekk na dèjà mokkal na li nga xam ne moom mooy alquran bi eh, tari ko moom Cheikh Mariam Niass macha allah mu doon koo xam ne daal eh, ku comme ni ma ko waxee ku bëgg alquran dèjà tam ci âge boobu mu ñu ne ci âge boobu ay 15 ans commencé di jàngale li nga xam ne moom mooy alquran kon mokkal na. ci at yooyu ba commencé jàngale li nga xam ne moom mooy moom karim di ko jàngale foofu ci madratu cheikh al islam ba nga xam ne mu ngi nekk ca Medina bay ci atum deux ci la ñëw fi nga xam ne moom mooy euh, Dakar atum 1952 kon la ñëw euh, euh, fii ci Dakar ci atum 1952 Cheikh Ahmed Ames ci la jógee fi nga xam ne moom mooy Kaolack kon ñëw fii ci Dakar lu ko jiitu nag 1949 waajuram may woon na ko may na ko borom kër mu ñëw fii ci Ndakaaru nag rejoindre domicile conjugal am fi nga xam ne moom mooy avenue Malick Sy ci ci Dakar foofu it mu commencé mu continuer bi mu doon jàngale mu ko fay jàngale mu tàmbali jàngale kon li nga xam ne moom mooy alxuraan ci ci néegam la tàmbali di jàngale alxuraan bi mu dem ba ci kanam mu yaatal euh, génn ci kër gi ak demee noonu léegi itam xam nga euh, dëkkandoo itam biñ demee ba yëg am na soxna su fi nekk di jàngale alxuraan ñu koy indil ay seen ay doom mu leen di jàngal alxuraan affaire bi di dem di dem di dem di dem di dem di dem nag euh, ba macha allah mu taxawal li nga xam ne moom mooy. Euh, moom mooy euh, complexe euh, Cheikh al Islam bi nga xam ne peut-être yaa ñu bëri ñu ko gën a xam ci école Mariama Niass mu nekk ca Patte d'Oie école Mariama Niass boobu ngay dégg complexe scolaire Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mu taxawal ko foofu nag ci atu ci at ci année quatre vingt quatre vingt dix yi quoi bi muy taxawal école boobu foofu ca ca ca ca ca fi ko taxawal noonu ci autoroute bi noonu daanaka foofu àll la woon. jamono ji euh, jam jamono ji mu ngi taxawal li nga xam ne moom mooy euh, complexe scolaire Cheikh Al boobu ci école ci ci fi mu ko taxawal noonu ci Patte d'Oie ci autoroute bi daanaka foofu ab ab àll la woon àll la woon boo xam ne boo taxawee yaa ngi seen li nga xam ne moom mooy mariste bi ngay seen mm-hmm. di seen li nga xam ne moom mooy côté cité des eaux di seen fi nga xam ne peut-être mooy Grand Yoff ak yooyu maam daal ci ab àll la dara ne daal la sample li nga xam ne moom mooy complexe boobu ba léegi école boobu nekk école boo xam ne nekkatul école bi ñuy présenté booy xool sax moom dafa ñëw inversé benn tendance boo xam ne euh, dafa amoon maanaka dañ doon xool ne ay école privée yoo xam ne d'habitude euh, résultat ñoo ko doon gën a le peut-être ma cité si mën naa si peut-être cité ay ay wala Notre-Dame wala Anne Marie Safiré notamment école privée catholique yi dañ doon gis ne côté résultat dañ ci doon daal battre à chaque fois kii mais moom booy xool mën naa ne dafa inversé li nga xam ne moom mooy tendance bi ak euh, système bi nga xam ne indi na ko système bi mooy lan daf ko basé ci enseignement coranique la mbir mi njëkkee enseignement coranique foofu la njëkkee tey ba affaire bi nekk benn système boo xam ne franco arabe la franco arabe mais tey école Mariama Niass day rivaliser résultat ak école privée d'excellence yooyu ma la limal noonu tey école Mariama Niass day rivaliser ak moom li nga xam ne moom mooy résultat ku ko taxawal ak jigéen jigéen boobu di Seyda Mariama Niass moo taxawal moo taxawal moo moo moo moo taxawal li ni na ci ay dëkk tukki na pas mal de tukki tukki tukki tukki tukki na ànd ak ki nga xam ne moom mooy euh, bàyyam Cheikh al-Islam Ibrahima Niass wante tukki na ngir propager li nga xam ne moom mooy l'islam ak enseignement ak lii di enseignement coranique d'ailleurs ci tukki yooyu am na étape boo xam ne damay bëgg damay bëgg di ko di ko rappeler ngir patriotisme bi nga xam ne moom Cheikh Ibrahima am na ko muy en 1987 ci ab tukki boo xam ne ñu ngi ko doon amal ci pays arabes yi dinaa bi demee ba émirat arabe émirat arabe uni bi nga xam ne nag euh, kii di soxnaay buur bi gis na macha allah alxuraan bu neex bi nga xam ne xalem yi ñu ngi koy jàng soxnaay buur bi daf ko proposé woon ngir mu toog foofu di jàngal alxuraan ay xale comme par exemple à chaque fois jabar buur yi ay fondation wala jabar président dañuy yor fondation à côté mm-hmm. jabar dafa dafa yoroon xam ne dafay kii ay xale mu proposé Seyda ma nges ngir mu toog foofu di jàngale alxuraan mais xool avantage boobu jabar buur tey dëkk bu mel ni émirat arab jabar buur proposé la pour nga toog di jàng alxuraan moonte mm-hmm. dafa dafa décliné offre boobu ndax lan mu ne dafa bëgg dëggam xubbul watan minal iman ñu ne Zuroob loolu loolu loolu la ko tontu dafa préféré kon continuer di jàngale ñëw dëkkam di fi jàngal li nga xam ne kon ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy xale yi. Cheikh Ibrahim Niass it euh, organisé na organisé euh, organisé na fi li nga xam ne moom mooy euh, benn journée internationale du Coran bu ma juumul atum 90 la bu ma juumul organisé journée bu mag. Coran bu am bu amoon fële ci kii bu amoon ci foire foire internationale bu Dakar journée boo xam ne macha allah journée Coran boo xam ne amoon na participation ay autorités yu am solo muy Sénégal ak bitim réew mu organisé euh, li ni mel te it euh, élèves yi nga xam ne ñoom ñooy euh, élèves bu Seyda Mariama Niass loolu tam baax nañu fàttali ko bu ñu nekkul ñi njëkk participer ci ay concours international bokk nañ ci maanaam élèves yi nga xam ne Seyda Mariama Niass moo leen bokk nañ ci Sénégal ñu njëkk a participer ci concours international bu Dubaï tey kon tey bu tey bu ñu demee ba Sénégal di am résultat yi mel noonu macha allah ci concours Coran euh, nañ xam ne ki nga xam ne moo ko teg ki ko samp Seyda Mara Niass moom la loolu it kon dina baax ci ñu koy ci ñu koy ci ñu koy ci ñu koy fàttali euh, ba léegi euh, Seyda Mara Niass moom bu ñu wax si moom di ci <laughs> bu wax si moom di ci du jeex bokk na ma bu ngeen ma mayee ma xool ko tuuti ba léegi bokk na si li a wax ci Seyda Mariama Niass ci atum 1991 euh, entreprise bi nga xam ne daanaka muy entreprise bu gën a mag ci Arabie Saoudite ci travaux publics muy muy Al Oweida bu ma juumul recruté na lu toll ci 400 sénégalais pour ay travaux ay constructions ñu ngi ko doon def foofu la ci Arabie Saoudite euh, loolu ci Seyda Mariama nges la jaar moom moo dox euh, li ni mel atum 2004. lu ko jiitu sax lu ko jiitu RTS njëkk na def benn reportage bu yaatu bu am solo ci Seyda Mariama Niass radio division télévision sénégalaise di RTS def nañ ab euh, reportage bu gën a yaatu ci Seyda Mariama Niass vulgariser li nga xam ne kon moom mooy enseignement nga def loolu sax tax na kon ba ñu bëri découvrir kon liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi ko doon amal euh, moom Cheikha Mariam ci atum 2004 aussi euh, grande chaîne Qatar yi bi ngi naan Al Jazeera jóge nañ ba fi nga xam ne moom mooy dëkk boobu lekkoon ñëw amal ab euh, waxtaan ak Seyda Mariama Niass ba léegi ngir wane rek euh, li nga xam ne mu ngi koy liggéey liggéey am solo yooyu. ba léegi sur le plan national ak international Cheikh Mariama Niass am na ay distinction yoo xam ne maanaam jagleel nañ ko ko. Euh, ak it ay yoo xam ne daal ay jaloore yu mu def la par exemple mën naa ci lim ci juin 2007 moom Seyda Mariama retenir ne ko mu bokk ci 300 personnalités islamiques mondiales yi nga xam ne dañ leen invité woon université Cambodge moo leen invité woon ñu waroon. bëgg a fësal daal baatu ba islam ak li nga xam ne moom mooy dialogue islamo euh, dialogue islamo-chrétien loolu bokkoon na si septembre 2007 moom Seyda Mariama ñu désigné mu nekk lauréate bu fête de l'excellence bi doon récompensé meilleur élève classe CM2 loolu Cheikh Amir Ames euh, lañ ko lañ ko lañ ko jagleeloon bokkit mars 2008 it mars en mars 2008 ki nga xam ne moom mooy daal alquran al karim bi nga xam ne kon instauré ne ko Euh, recevoir ay visite secrétaire bu ligue islamique mondiale loolu mu ngi amoon ci jamono bi mu doon amal lii di euh, journée euh, du Coran yi ba léegi avril deux mille vingt trois Seyda Mariama Niass jox nañ ko diplôme d'honneur ki ko jagleel di ñi nga xam ne ñoom ñooy groupe Fallou international magazine multimédia média fekkee ci décembre deux mille treize it mu recevoir li nga xam ne moom mooy décoration bi ñuy woowee ordre national du mérite ci loxo yi njiitu réew. mii di euh, Macky Sall. ba léegi ci li nga xam ne euh, moom mooy ay euh, côté diplomatie Seyda Mariam Niass bokk na ci ay dialogue de concertation yoo xam ne entre Sénégal la ak yeneeni réew muy ay dialogue yoo xam ne sax ci mujjantal ga day aboutir ci reprise ay relations diplomatiques ci diggante Sénégal ak li nga xam ne kon moom mooy réew yooyu la bokk na xanaa fi may daanle rek ci projet yu muj yoo xam ne Seyda Mariam Niass mëbatoon na ko def ci li nga xam ne moom mooy dundam bokk na ci fële ci école Mariama Niass euh, mu def fa euh, li nga xam ne moom mooy ab euh, ab mosquée wante it ab lycée scientifique ak université d'ailleurs sax loolu fi mu nekk nii ñu ngi ci lancement ñu ngi ci lancement yooyu la yooyu la yooyu la travaux xam naa li ma bëgg wax ci Seyda Mariama Niass yëpp moom xajul ci li nga xam ne moom mooy benn émission wi benn émission boo xam ne kon bu wi maslaha di wax rek moom def na ci Sénégal Euh, loo xam ne daal dootul fay wala ci àdduna sax parce que tey ñi nga xam ne ñoom la jàngal ñi mu jàngaloon tey euh, booy xool am na si ñoo xam ne sax dañoo nekk imam mm-hmm. waxuma Sénégal fii de mais ci ay dëkk yu mag la ñu nekk imam ci ay grande mosquée ñoo xam ne moom moo leen formé te ñi nga xam ne moom moo leen jàngal alxuraan ñoom ñoo continuer di jàngalaat ñeneen mm-hmm. euh, alxuraan kon mission bi daal def na fi mission boo xam ne daal du feeti moom ma moom dañuy ànd ak émotion moo tax ba bu ñuy wax ak moom di ànd ak. nekk na lu am solo buur yooyu la jàngal yooyu lay jàngat yi nga indi si kii di Seyda Mariama Niass nekk loo xamante ne nii. Euh, moom nag nekk na jigéen boo xam ni comme li nga ko waxee rek jigéen ju man góor def na fi lu nekk surtout si mbirum euh, lislaam si mbirum euh, diine si loolu tamit duñ ko mos moom seydaa Mariama ñas xanaa ñuy jàll si yeneen jigéen yi nga xamante ne nii. doon nañ fi ay jàmbaar ku si mel ni Ami Sarr Fall ak Fatma Samoura waxtaan tamit si ki si mel ni a Ndour Faye nekk DG 7 TV waxtaan tamit si sama tataay boobu nga xamante ne nii moom nekk na nit ku dal nit koo xamante ne nii suy wax sax da xam ne kii dafa am diine di Tata Thiané Diagne jour ji moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax de passage ndaxte heure bi daaw maa ngi defoon jàkkaaroo ak moom nekk jigéen bu baax jigéen bu dal jigéen bu am euh, patience si loolu xam naa dama lay bàyyi Kalidou nga am euh, ay euh, jàngat yoo ñu indil si yooyu la jigéen rek ñu daal di continuer. waaw jërëjëf Astel jërëjëf suñu naataango si li nga wax la am solo. mel na Amy Sarr ñu def benn zoom si moom amisal Sarr Fall bokk na ci ñi nga xam ni jigéen mu mun góor la ñi nga xam ne Sénégal dafa ñu tiitaroo Euh, gannaaw bi ma jàngal nag Ami Sarr Fall moo jiitee euh, intelligence euh, magazine nga xam ni plateforme la boo xam ne de daal di publier lépp lu jëm ci wàllu communication wala minorité mu nekk koo xam ni ku ñu naawal Sénégal à travers l' Afrique dans le monde Ami Sarr mu mel na bi mu jàngee daal di doon dem fële ca France université Amérique université Amérique bi nekk fële ci Paris foofu la jàngee parce que dafa bëggoon puisque moom dafa am niveau bu baax si français dafa bëggoon aussi jàng anglais ginnaaw bi nga amee diplôme am na diplôme jëm ci wàllu communication wala management des affaires soo jógee foofu daal di dem euh, fële nga xam ne ñooy États-Unis dafa loo xam ne aussi bokkoon ci li tourné carrière mooy ni ma rencontré Barack Obama Hussein Obama ki xam ne candidat la ci présidentielle bu 2007 ma assisté benn débat boo xam ne Obama daf daal di wax ni nit daal su amee volonté daal mu dugg di si àddina loolu nag moom motivé mu ñaar Sénégal mu cinquante cinquante six page première édition moo ko publié te mu wootee pour mu woote ni nga xam ne population bi daal ñun daal di vraiment euh, daal di dugg ci li nga xam ne mooy wàllu entrepreneuriat daal waaw aussi mu daal di taal xel yi wala wàllu ki nga xam ne mooy éveil des gis nañ euh, ginnaaw loolu euh, daal dina delluwaat États-Unis daal di créer benn blog boo xam ne daal dina jàppale ki nga xam ne mooy Barack Obama ci élection ci campagne à travers Facebook sax la ko doon def d' ailleurs amoon lu mot 3000 euh, followers ginnaaw loolu dafa am lu am solo mooy dafa raconté ki nga xam ne mooy euh, Dalai Lama mm-hmm. Dalai Lama ni koy dégg mooy chef spirituel bi nga moo nekk ci Tibet nekk kilifa diini kilifa aar bu mag boo xam ni adduna bi yëpp ñëpp xam nañ ko daal na ko rencontré loolu nag dafa am lu ko yokk rencontré nañ aussi ki nga xam ne mooy maire bu Paris di Anne Hidalgo en 2014 maire socialiste nekk fële ci Paris gannaaw loolu nag euh, ci la ñu Sénégal daal di investir nga xam ne en deux en deux mille gis nañ ni mooy parmi fukki jigéen ñi nga xam ne ñoo gën influence en Afrique si la bokk. Mhm. daaw sax jox nañ ko raaya bi gën mag en Afrique di calebasse de l'excellence nga xam ne mooy calebasse euh, de l'excellence jigéen soo xoolee moom bokk na fi nga xam ne ñoom la ñu gën a Sénégal ñu koy ñu koy sax. Euh, ambassadeur de la jeunesse am na presque lu toll ak un million et quelques followers ñoo xam ne muy page Facebook. d'accord macha allah est-ce que duñ ko duñ ko tënk rek parce que am na yeneen jigéen ñu war a waxtaanee ko si mel ni Fatma Sall voilà ak may mënoon. jigéen ñi nga xam ne réew mi di tiitaroo Amy Sarr Fall jiite waa jërëjëf Kalidou ba tey rek suñuy wax ci euh, ay jigéen yi nga xamante ne ni nekk nañu jigéen euh, jigéenu Sénégal jigéenu jàmbaar suñuy wax ci ñoom nag duñu jeexal xanaa ñu jëlaat exemple ci ku mel ni Fatma samura ak kii di may a Ndour Faye ak sama tata boobu di Thiané Diagne jour J. waaw Salma euh, Samoura nekk na doomu Sénégal xam ne jigéen mu góor la moom gannaaw bi mu liggéey. Eh, lu tolloog vingt ans expérience ci Nations Unies ci programme alimentaire mondial moom euh, daal dina liggéey ci réew yu bare ci ci Afrique ci Nigéria ci Burkina Faso ci Niger ginnaaw loolu en janvier 2016 daal dina nekk secrétaire général bu kuréel bi ëmb wàllu football bi nekk ci àddina bi wàllu FIFA mm-hmm. def gis nañ aussi taxawaay ba am solo def ci ci coupe du monde bi amoon fële ci Russie 2018 ak ci Qatar 2022 xam na sama la bokk na ñi xam ne Sénégal def leen di ndamu euh, Sonatel Maimouna Ndour Faye moom tamit euh, buñ ko jëlee moom mi nga xam ni actuellement mooy nekk DG bu télévision 17 TV moom jaar-jaar bu am solo ndax jaar na fële ci Walf liggéey ci Walf Quotidien dem ci cinq ans expérience ci Canal Info jiite des espoir bi ginnaaw loolu mu ñëwee daal di nekk jigéen boo xam ne dafa nekk jigéen par nekk mari am yombul te journaliste mu taxal groupe bu mel ni 7TV nga xam ne am na plus de soixante-dix employés Maimouna Ndour Faye tamit bokkal ci ñi nga xam ne wala li mu cité comme waa jërë ngeen jëf euh, Buur Sine ak kii di Kalidou si yooyu lay jàngat yu am solo yi ngeen am si yooyu lay jigéen yi ngeen xam ne def nañu lu rëy lu si yooyu lay jigéen yi nga xam ne def nañ lu am solo si mim réew loo xam ne kenn kenn dootu leen fàtte ci loolu xam naa dañuy ñëw waxtaan si wàllum euh, parité bi nga xam ne amal nañ ko voté nañ ko assemblée nationale nag euh, le 14 mai 2010 nekk lu am solo. ñu daal di ci waxtaan si wàllum parité ak mbirum féminisme mi nga xam ne am na fii ci Sénégal buur xam naa ma lay jox kàddu gi rek nga wax ñu sa gis-gis si boobule parité ak mbirum féminisme nan nga ko gisee fii ci mim réew wala Kalidou ma jox la kàddu gi. waaw euh, mel na comme ni ñu waxee loi bi jëm ci wàllu parité mel na Abdoulaye Wade def na si si nguuram lu am solo ginnaaw bi nga xam ne le 28 mai 2010 lañ ko daal di promulgué ci assemblée nationale ah pour ñu fexe daal ba vraiment suñu waxee benn góor wax benn jigéen mm. ñu gis ni Macky Sall bu ñëwee daal ni ko jëmmalaat ba en 2012 gis nañu ni vraiment jigéen ñi am nañ gis nañ seen taxawaay bu am solo ca pencum réew mi te assemblée mm. jàpp nañu ni sur mandat sur euh, mandat sur 150 64 euh, ay députés yoo xam ne jigéen lañ te 2012 gis nañu aussi lu toll ak 42,7 pour cent nga xam ne jigéen am na représentant représentant ci assemblée nationale. ginnaaw loolu tamit gis nañu léegi même ci euh, ñi xam foofu la ñoo tàbbee léegi liste élection yi lay soo xoolee liste yi da ngaa def góor jigéen soo deful lu jàll mm-hmm. léegi léegi parité cent pour cent cinquante cinquante mm-hmm. assemblée nationale liste boo def su am parité du jàll donc gis naa jigéen tamit vraiment li nga doon xeex ñu gis je crois lu am solo parce que jigéen tamit war na gis seen bopp mm-hmm. naa ko ni boobu daal loolu laa si doon wax si loolu dama fay jaare daal di nuyu sama tata bii di Ndella Madior Diouf moom tamit eh, am na ay eh, ay jéego yu mu si joon eh, def nekk wàllum parité waxtaan nañ ci lu bëri Buur Sine ma bàyyi la nga am loo ñu ci apporter waaw soxna Asel man moom parité ak lii di féminisme li ma si mën a jàpp daal moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi ñu gën leen dooleel gën leen outillé ba ñu gën a mën a autonome mais euh, du ma ko du ma ko déggee euh, maanaam euh, peut-être tollale góor ak jigéen wala yu ni mel mën na am ci peut-être si domaine liggéey tey maanaam jigéen lu muy liggéey boo gisee peut-être góor lu muy liggéey jigéen tamit yenn saa dañuy gis ne dina koy dina koy mën a liggéey mais même si liggéey sax boo ñëwee am na liggéey yoo xam ne liggéey yu métti la yoo xam ne peut-être góor moo ko mën def jigéen jigéen jigéen mënu koo def am na tey yenn taxawaay yi ci wàllum diine ak ci wàllum fépp da ngay gis ne góor yi ñoo koy mën a taxawee ñii di jigéen duñ ko mën a taxawee euh, mais ak lum ak lu ci mënti nekk it euh, parité ak féminisme buñ ko déggee jigéen di diir mbag góor wala jigéen euh, ne daal fépp fu góor war a taxaw rek dafa war a taxaw loolu daal loolu loolu moom yaakaar naa nekk adduna bi tëddeewul adduna bi adduna moo tëddee nii yàlla moom moo tëralee noonu yàlla moom moo jiital góor kon nañu nangul góor kilifte euh, boobu ak jiite boobu nga xam ne am na ko donte nag warul tax euh, ki nga xam ne moom mooy jigéen bi ñu war ko jàppee rek c'est pas benn euh, xam na laa ko mën a waxee waaw waaw waruñu ko néewal doole waaw comme ni nga ko waxee jigéen gi waruñu ko néewal doole war nañ ko jox gëdëm ba mu ba mu doy war nañ ko accompagner ba nga xam ne moom du sentir ne daal dañ koo suufeel wala dañ koo wala wala wala daal dañ ko néewal doole ba tax muy am benn sentiment de révolte ak yi euh, ak daal bu ma ko mënee bu ma ko mënee waxee noonu lu si mën a déggee daal mooy comme ak féminisme daal euh, ngir gën a mën a dooleel jigéen la mu gën a mën a épan émancipé wu mais pas mu tolloo ak góor waaw. daal loolu nga jàpp ne jigéen war ta mën a tolloo ak parce que côté boobu da nga wax tamit lu am solo mooy si wàllum liggéey ak wàllum diine man moom si wàllum diine. d'accord naa si li nga wax que jigéen mënul toll ak góor ndaxte jigéen du jiite kon bu ñuy wax parité tamit dafa am ay limites mais si wàllum liggéey fi réew mi toll dañoo jàpp ne lépp lu góor man jigéen mën na koo def. parce que d'ailleurs si États-Unis suñu demee foofu am na ay temps yoo xamante ne nii jigéen ñi dañ doon dañ dañ doon fay góor ñi plus plus à 36 pour cent suma ma juulee 36 pour cent. dañu yokk si salaire def ko góor ni maanaam góor ak jigéen daanu ñu tolloo ay salaire nekkoon na loo xamante ni ni tamit gënoon naa pousser jigéen ñi pour ñu xeexal seen bopp si 8 mars boobu kon si mbirum liggéey tamit si côté boobu jàpp naa. am na li nga xam jigéen mu ñu ko liggéey non par exemple comme travaux lourds travaux pénibles loolu jigéen am na yoo xam jigéen. gis jigéen ñoo xamante ne ni dañuy dañuy doon dañuy doon ay chauffeur. gas jigéen du nekk ci chantier jigéen du kii. non ba tey ba tey jii. non mais no waaw am na am na ñuy def mais dafa am liggéey yoo xam ne doole jooju góor moo ko am physique boobu attan moo ko mën a euh, physique bi euh, góor a ko mën a attan. gisoo suñu jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu bu baax macha allah moom dañ ciy gis sax ay jigéen mécanicien sax gis nañ ko fi macha allah ñoom moom ñu ngi góorgóorlu ñu ngi kii mais daal nañu émancipation bi daal ak ak ak parité bi euh, ak xam nga féminisme nañ ko jàppee loolu nañ ko jàppee ne maanaam ñoom ñu ñu ñu ñu ñu ñu war a kii la maanaam fu góor taxaw mun nañ ko wax jigéen mën na fa taxaw mais daal à chaque fois jiitu fa waaw am na limite effectivement limite yooyu daal nañu nañ à chaque fois nañuy demee seen bopp ne am na limite mënuñ mënuñ mënuñ mënuñ def nii daal nii ak nii ku daagul ak góor yi quoi loolu dañu waxtaanee tuuti si mbirum parité est-ce que nekkul lu tax jigéen ñu bëri léegi bëggatuñu ko leen yilif loolu tam da si am yenn saa yi côté côté côté kilifteef ndax da gis moom ñoo xam ne sax dañu naan ana lan moo tax tey jigéen bi moom mooy ëmb waaye demee noonu te paree góor gi mooy tudd góor mooy def nangam mm-hmm. nangu kilifteef it dafa baax mm-hmm. jigéen dafa war a nangu kilifteef <laughs> loolu mbiri yàlla moo tëral ay mbiram yàlla lim tëral nag maanaam tey amul benn loi benn kii boo xam ne mën nañ ñëw li nga xam ne yàlla moo ko tëral ñu dindi ko loolu yàlla moo ko def yàlla moo def yàlla moo jiital góor nañ ko nangoo noonu mais tam nekkul encore une fois ne góor gi dafa jiitu rek dafa war a doxalee nu ko neex wala dafa war a suufil jigéen bi wala dafa c'est pas c'est pas ça quoi. pour seen Kalidou di waxtaan si loolu tuuti est-ce que jàpp nga ne fii fi ñu toll nii est jàpp nga ne jigéen war na mën a tolloo ak góor si bépp bi si bëpp domaine bu ñu dem. waaw jërëjëf man comme ni nga sam naa la waaye jàpp naa ne jigéen war a mun tolloo góor ci wàllu liggéey. ak lu bari ci wàllu droit mais jàpp naa ne puisque ñun dañu am tradition am ay valeur te ñu doon ay ñu si ñi chrétien ñi musulman te ñu soxal am lu bari loo xam dëppal nañ si ñaari jàngale yooyu jàpp naa ni fekk li jëm ci wàllu foyer nag fekkee wàllu foyer góor mu baak kër man loolu la man lool man loolu laa gën parce que que soit musulman wala chrétien bi ñoo bokk parce que suusu bu ñoo doyee jàpp naa ne foofu ak même fekkee jigéen nga sax d'ailleurs am jigéen ñoo xam ne d'ailleurs sax inspecteur de mais suñ la nee kër ga dañ daal di silbi ko ñëpp jàpp naa ne fekkee ci wàllu kër nag góor moo war baat góor a jigéen a mën góor ci li jëm wàllu kër nag jàpp naa ne góor moo war baat parce que féminisme d'ailleurs soo xoolee sax Europe lu tàmbali intellectuel musulman yi dem France ñoo ko théorisé soo xoolee lu si ëpp na ni jigéen daal war na mun vraiment enquête bu baax ci modèle jàpp naa ne war nañu mun nangu Sénégal léegi même yow sax day féministe di définir la c'est bon am solo waaye daal eh, bu si ëppal daal bu si ëppal daal nañu xam ne ñu tamit am nañu valeur xam ne yi am solo te war ñu benn ñu yi nga xamante ne ni moom la ñu moom la ñu am d'accord jërë ngeen jëf ma bàyyi leen ngeen tàggatoo xam naa fii la oh, ñuy yem ak internetu seneinfo point net seneinfo international dama leen di bàyyi ngeen tàggatoo rek ñu daal di joxe dig daje ginnaaw ëllëg incha allah eh, Kalidou jërëjëf ñu ngi lay ndokkale ci encore euh, soxna Asel ci marché bi di ndokkale suñu yaay yi ah suñu yaay yi suñu jigéen suñu sœur yi ñooy lépp vraiment di leen encouragé ñu xam ne ay jigéen jàmbaar lañ di nuyu sama naataango di gërëm baax Bour Sine ak euh, seen internet yi ñu doon suivre di leen jox rendez-vous ci euh, gannaaw ëllëg su si di gërëm bu baax suñu cadreur Abdel Diallo jërë ngeen jëf jërëjëf euh, Buur Sine ma bàyyi la nga tàggoo rek euh, si 8 mars bi ñu daal di tëj ba ginnaaw ëllëg incha allah. waaw soxna Asel xanaa rek euh, di la souhaité waat encore une fois bonne fête de 8 di ko souhaité itam sama yaay maa ngi koy souhaité bonne di ko souhaité sama soxna samay rakk yu jigéen samay xame samay xarit yu jigéen di leen ko souhaité kon bonne fête di leen jaajëfal ci daal. taxaw bi nga xam ne yéen ñu koy taxaw di ko taxaw suñu ay njaboot di ko taxaw adduna bi lay wax di jaajëfal itam mbokk internet yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Yoor Yooru Sene waa jërë ngeen jëf Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf jërëjëf Kalidou Ba di am mbégte ak contentement di bokk ak yéen bile plateau di si jaajëfal également suñu caméraman bi di Abdel Diallo di si jaajëfal bëpp jigéen si 8 mars bu ñu nekk di jaajëfal internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers seneinfo point net seneinfo international di leen jox dig daje ginnaaw ëllëg incha allah jërë xibaar yi wóor te leer ci bile jamono restez toujours informés yi wóor te ci bile jamono fii la mburu fii lay xayam xayamee yi wóor te leer ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono